أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko tey noo ngi jeexal buntu bi ci kitaabu tawxid di jàngale man ataa al ulama wal umara fi taxrimi ma axallal ma axalla allah aw taxlil ma xarama allah ñoo ngi tàmbalee tey fii sëriñ bi di leerale amma taatul umara wa mutaabaatuhum fi ma yuxaalif ma sharcahu allah wa rasulahu mu ne bu fekkente ne tomb bii di topp njiit yi njiit yi taatul umara xam ngeen ne yonente alayhi salaatu wasalaam wax ne ñaari nit ñaari groupe ñaari mbooloo ñaari xeet suñu baaxee rek ñëpp baax suñu bonee ñëpp sànku sinfaan la yonent bi wax min ummati mu ne isa salahu salaha annaas wa isa fasadu fasada annaas mu ne al umara wal fuqaha ñaari xeetu nit ci biir nit ñi bu ñu baaxee rek ñëpp baax mu ne bu ñu sànkoo ñëpp sànk mu ne mooy boroom xam-xam yi ak njiit yi suñu leçon bi passé jàngoon nañ ci borom xam-xam yi tey ñu ngi jeexalee bind bi ci taatul umara topp njiit yi suñ ne njiit nag mooy képp koo xam ne dalaa jiite te ci du ci wàllu diine képp ku la jiite te jiitewu la ci diine kooku la ñuy wax surtout nag mu jublu ci wàllu réew muy wax nit ñi di dégg muy def di dindi nit ñi topp ko su boobaa dafay dugg ci ñii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne rawatina nag njiit yoo xam ne dañ leen a topp ci lu wuuteeg li yàlla indi njiit yoo xam ne seen doxalinu àdduna seen gis-gis dafa wuuteeg doxalinu yàlla ak yonentam mu ne su boobaa suñu toppale suñu toppee njiit yooyu déggal leen ci lu wuuteeg li yàlla ak yonent bi indi su boobaa ñoo ngi jaamu njiit yooyu bàyyi yàlla léegi nag nun nooy xool nun nun nooy xool ndax tey fii nu toll nun noo ngi jaamu njiit yi wala jaamu wuñ leen su fekkente ne njiit yi dañuy àtteloo ci lu dul li yàlla bëgg réew mi niñ koy doxalee dañ koy doxalee nu dul ni yàlla bëgg su boobaa yonent bi nee na ñu ngi jaamu njiit yi bàyyi na nu yàlla di jaamu njiit yi mu ne lii nag tey waxuma la ci Sénégal waaye faqat amat bihil balwa qadiman wa hadisan tey lii dafa daj kapp àddina bi musiba la boo xam ne daj na réew mi ci démb waaye ak tey démb ba fi yonent bi bàyyeekoo Aboubacar dem Omar dem Ousmane Ali xulafaaw Rashidin ñoom Omar ibnu Abdul Aziz ba ñu demee lan moo wuutu mooy ay njiit yoo xam ne seeni doxalin la ñuy toppaloo nit ñi wala ñu jaarloo jaami yàlla yi fi yàlla bëgg déedéet dañ leen di jaarloo ñoom fi nu bëgg te xam ngeen ne bëgg-bëggu nit ak doxalinu yàlla du benn yàlla moom bi mu bindee doomu aadama dafa wàcce ci moom shari'am ne ko fii laa bëgg nga jaar waaye lii nuy wax ni tey mbokk yi dafa daj kapp du tey nag la tàmbali démb la tàmbalee mu ne fii aksaril wulaati baada alxulafa irrachidin wa halluma jara ginnaaw li ëpp ci njiit yi ginnaaw xulafa urrachidin aboubacar omar ousmane ali ñooñu ba ñu demee ña wuutuwaat yépp yonent bi ba tey fii nu toog ci doxalin gu ñuy doxal ci kanami jaam ñi seeni bànneex la ñuy toppaloo nit ñi toppaloo wuñu nit ñi yàlla bu ñu leen di atte du ñu leen atte woo ci yàlla alxuraan ak sunna suñ leen di digal duñ leen digal li yàlla bëgg buñ leen di tere duñ leen tere loolu li yàlla bàyyi bal sax doxalin yu ëpp mooy dañuy wuuteeg li yàlla bëgg yàlla daa aramaloon sàngara njiit yooyu dañ koy daganal yàlla daa aramaloon njaaloo njiit yooyu dañ koy daganal yàlla dafa aramaloon jigéen def yaramu neen njiit yooyu dañ koy daganal yàlla dafa aramaloon bokkaale njiit yooyu dañ koy daganal ak ni ngeen ko xamee yéen a ngi koy gis guddeeg bëccëg di ci teg bët mbokk yi mu ne wa qaala taala sunu borom wax na subhanahu wa taala ci suratul qasas aya 50 sunu borom a ngi wax ak yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ko fa in lam yastajibu laka faalam annama yattabi'una ahwaa'ahum yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay yëgal ne gaa yi ngay woo suñu lànkee bañ laa wuyu si yëgal ne dara téyewu leen lu dul topp seeni bànneexi bakkan fa in lam yastajibu lak buñ la wuyu siwul faalam yow yonent bi na nga yëg ne annama yattabiuna ahwaahum ñii de li tax wuyu siwuñ la mooy seeni bànneexi bakkan lañ topp moo tax wuyu siwuñ la léegi nag nan xool ñun li wuy siwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Sénégal wala ci àddina bi lu leen tere wuy ji yàlla dana woon yonent bi ci alquran ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa li rasulihi iza daakum maa yuhyikum yéen ñi gëm yàlla wuy ji leen yonent bi bu leen yonent bi woowee léegi lu tax ñun jullit ñi yonent bi duñu woo ñu lànk ba ñëw wuy ji loolu ñun ñëpp ñoo ko bañ a laaj suñu bopp lu tax yonent bi di woote dañuy wax wax yi doy waar yenn saa yi ci réew mi mooy dañ naan barke démb sax am na kilifa gu ko wax nee na ku wuuteeg mag ñi liñ fi indi toj leen kaabaam loolu dégg naa ko ak sama nopp bii léegi ñun dañoo war a jàngat benn tomb ñu ne kan lañ war a wuy ji kan lan war a wuy ji kan ak kan la yàlla yónni ne ko wooteel yàlla ne jaam ñi dem leen ngeen wuy ji ko kan la loolu ñun ñëpp ñoo ko war a jàngat dama jàpp ne mbooloom islam mbooloom islam ndax war na noo wuy ji kenn ku dul yonent bi ah mbooloom lislaam laa wax ndax war na nu wuy ji ku dul yonent bi laaj bu ma leen laaj la yéen ñëpp ah yonent bi lañu war a wuyu ci Sénégal yonent bi ak ñeneen ñi kopp mbooloo ah ñeneen ñëpp mbooloo lu tax ñooñu ku leen yónni ba ñu wuy ji foofu loolu mooy wax bi su fekkee dañu ne nañu wuyu ji yàlla wax ci alquran yonent bi yéen ñi gëm yàlla wuyu ji leen yonent bi bu leen yonent bi woowee fii mu ne buñ la wuyu siwul na nga yëg ne seeni bànneex lañ topp kon Sénégal seen bànneex lañ topp moo tax wuyu ji wuñ yonent bi wala lii ma wax dooy aaya li may wax ni laa dooy aaya alquran xool leen xool leen seen seen seen téere yi ngeen yor yàlla moo ne ko fa in lam yastajibu lak wax naa leen saar bi saaru alquran bi wax naa leen ci kaamil bi dem leen ngeen seet suratul qasas hmm? ngeen xool ay juróom fukk ngeen xool lii sama wax la wala waxu yàlla la yàlla nee na wa in lam yastajibu fa in lam yastajibu laka sunu la wuy si wul faalam yow yonent bi na nga yëg ne innama yattabiuna ahwaahum ñoom de lañu leen tere wuy si mooy seeni bànneex lañ topp su yàlla yemoon fii rek doy na leer na ñan waaye mu ne wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bi gayri hudam min allah ndeysaan xam nga kan moo gën a sànk xam nga kan moo gën a réer mimman ci waa ji nga xam ne ittaba'a hawaahu dafa toppi bànneexi bakkanam kii kenn gënu koo réer loolu mooy tontu bi lan moo tax mu topp bànneexi bakkanam mu ne yàlla ne bi gayri hudan ndax àndul ak njub loolu moo tax mu réer waaye boo àndee njub da ngay wuy ji yàlla su wootee da ngay wuy ji yonent bi bu wootee wa man adallu mimman ittabaa hawaahu bi gayri hudan min allah kenn gënta réer ku topp bànneexam koo xam ne bànneex yi dafa wuuteeg njub li yàlla indi alxuraan bi képp ku ko bañ a topp da ngay réer sikk nekk ci loolu mooy lii tey li tax Sénégal ñu réer du dara lu dul dañoo wuuteeg alxuraan nanguwuñu dégg li alxuraan wax nanguwuñ ko dégg xoolal tey ci sunu réew Sénégal fi mu toll nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent ñaata lañ loolu mooy lan ci ci olof maanaam téeméeri nit ñoo jël ci biir réew mi juróom ñeen fukk baak juróom ay jullit lañ ñu ne kon téeméer bi ñaata moo des nekkuñu jullit juróom waaye dama leen di laaj loolu fan la feeñ ci biir réew mi ndax loolu feeñ na feeñul fe dëkk bi daanaka da ngay yaakaar ne nasaraan yi ñoo ëpp jullit yi soo ñëwee ci ngénte yi loolu du feeñ nañu koy doxaleeg na ko yonent bi waxe woon du benn nga ñëw ci ceet yi ni ko yonent bi waxe woon ak ñoom niñ koy defee du benn nga ñëw ci dëj yi ni ko yonent bi waxe woon ak ñoom niñ koy defee du benn ci ci loo ñëw nag lu leen neex ngeen jël ñun niñ koy defee ak ni ko yonent bi santaane woon du benn wala yàlla mu ne wa man adallu mimman tabia hawaahu bi gayri hudan min allah mu ne inna allaha yàlla laa yahdi alqawma alzalimin yàlla nee na du ma jubal ay tooñkat ku may tooñ doo jub mukk kon jeex na inna allaha naka yàlla laa yahdi du jubal alqawma alzalimin ay nit yoo xam ne ay tooñkat lañ ñiy tooñ yàlla du ñu jub jamais du ñu jub ku wax wax ji yàlla kon leer na kon saa yu ñu bàyyee topp yàlla topp njiit yi ñi ñu jiite ci suñu wàllu àdduna ñooñu fañ ñuy wommat mooy ci lu neexul yàlla gis ngeen tey politique gu réew mi lan la lu neex yàlla la politique gu réew mi amul lenn loo xam ne yàlla moom na ko ci lépp dañ cee seppi loxol yàlla ne ñun mën nañoo dund sans yàlla li Karl Marx waxoon loolu la waa Sénégal di dund xam nga Karl Marx dafa la woon ne lan ah nañu jiite nañ dund àdduna bi sans ñu def ci yàlla loolu la Karl Marx waxoon tey jii loolu la ñuy jàng ci sunu école yi loolu la xale yi di jàng mooy dund leen diine bu leen ci booleeg yàlla yàlla amu ci place. loolu nag ku ko jàng ba génn ñu jox la réew mi na nga ko jiite ci loo koy jiite ci musiba jëlee nañ. hadis ziyad ibnu xudayrin qaala qaala li umar hal taarifu ma yahdimu l islaam kenn ci sahaaba yi ku tudd ziyad dafa ne benn bis omar def ne ma yow ziyad ndax xam nga lan mooy mabbu lislaam xam nga lislaam lu koy yàq qultu la ma ni ko déedéet loolu de xamaguma ko diina ji di lislaam lu koy màbb mu ne waaw mu ne xam nga ko mu ne ko la xaw ma ko qaala omar ne ko yahdimul islaam zallatul aalim tarxiisu boroom xam-xam day yàq lislaam boroom xam-xam bu tarxiis dina isa zalla al aalimu zalla al awaalimu boroom xam-xam su tarxiisee lan lañ ci jublu waxuñu mu waxuñu mu dëgg ci dër daa tarxiis daanu de jubluwuñ ci loolu lan lañ ci jublu mooy boroom xam-xam bu dëngee ci diine ñaata nit lay dëngal ah xoolal boroom xam-xam bu dul julli buy conférence julli jot lu muy wax lii nu nekk moo gën julli toog leen ñëpp toog kenn du julli suba ba ngoon kenn du jóg julli ndax nee na leen lii nu nekk moo gën julli ah boroom xam-xam bu bu saay-saay bu kàccoor day yàq lislaam tey nag loolu moo am Sénégal boroom xam-xam yu kàccoor woote bu dul jeex non man sama whatsapp bi dama yaakaar ni Sénégal dañoo man ay nit ñi léegi dañoo màndi man dañ may envoyé ba mujj gi du ma ko déglu ndax daanaka su ma ko déglu sama xol bi day jeex jeex ba nga xam ne tey jii yu bëri dama leen dama leen di supprimer dégluwuma ko ndax benn dong laa déglu pare ci tey rek tey bés bu nekk nga dégg nga dégg tojaange bés bu nekk bés bu nekk nga dégg musiba te ñan la ay borom xam-xam ñoo koy def ñoo koy wax ñoo xam ne nit ñi dañ leen a topp tey dama dama déglu benn vidéo ba pare ma wax kenn ma ne ko déglul mu déglu mu ne kii est-ce que dafa dof est-ce que kii doful mu ne ma kii de xale yi ndaw yi sax ñoo ko tane ma ne ko déedéet mu ne ma li muy wax nii ma ne ko gis nga kii musiba bi muy def xoolal ñi ko wër mu xool gis vidéo bi daanaka stade bu fees ñëpp topp ko ma ne xoolal ñëpp safara lañ jëm parce que wax yi muy wax ñii loolu la ñuy gëm bu ñu dee ñoom ñëpp yàlla lakka leen te lu doy waar Sénégal mooy man su ma amee kilifa diine su waxee dara au lieu li mu wax ma natt koog waxu yàlla ak waxu yonent su àndee ma jël jëfe su su wuutee ma teg ko fële ma jël waxu yàlla ak waxu yonent bi déedéet Sénégal moom topp ngumba la ñuy topp topp ngumba ah moo ko wax de moo ko sañ de moo ko sañ am na sañ-sañ bi loolu mun naa nekk lan moo mën a nekk nan la mën a nekkee yàlla dina wax nit ñi julli leen ba mu ba ba càgg kenn ñëw mu ne bu leen julli yonent bi julli Aboubacar julli Omar julli Ousmane julli Ali julli Imam Malik julli Abu Hanifa julli Shafi julli Ahmad julli sëriñ yi njëkk yi fii sax julli nañ wala léegi fii ñun ñoom ay mbooloo yoo xam ne duñ julli ba pare ñu ne loolu mun naa nekk nga ñëw ci koor yonent bi woor wax saxaaba yi ñu woor ñoom maalik ñëw taabiine yi ñëw woor fii ñu day ñu am ñoo xam duñ woor nga ñëw ci joxe azaka ñëpp def ko ci aima yi ak yonent bi ñëpp nga gis fii ñu ko dul def ñu loolu ñun duñ ko joxe ñun kay nangam rek la ñuy joxe nga ñëw ci dem màkk ñu ne la loo fay wuti benn waaye dafa ñëw ci benn magasin di jënd bi mu wàccee otom rek ndeysaan kenn ci ñiy jaay ci magasin bi ne ko alaaji diw mu ne ko bu ma ko waxati dara nga ma koy wax kooku ne ko dama laa yéene nga aji rek mu ne ko man lu mu fay uti lan laa fay uti man dinaa fi gis géejawaay di dem màkk lu may uti gé màkk dégg nga loolu jullit bu gëm ne waroo dem màkk yéeféer nga jullit bépp bu gëm ne màkk waruma faa dem rek yéeféer nga aj màkk du du du sunna lan la farata la comme ni ngay jullee comme ni ngay wooree comme ni ngay joxe azaka comme ni ngay seede ne yàlla kenn la Muhammad yàllaa ko yónni bis boo dindee aj màkka ci sa dindu na nga yëg ne yow nekk nga yéeféer léegi nag mu des yéene nga aji màkka waaye amoo mënoo wàcc na la waaye bis boo ko mënee nga lànk comme ni ko gars yi di waxee nga naan jarta dem bu yeboo ci diine islam nga xam ne yow bokkatoo ci génn nga ci tamaaman kon Omar biñ ko laajee bi mu laajee Ziyad ne ko ndax xam nga luy màbb diine Ziyad ne ko déedéet lan la ko njëkk a wax qaala yahdimu l islam zallatul alim mu ne borom xam-xam bu tarxiis day yàq diine borom xam-xam boo xam ne ñaata soxna la yàlla maye woon moom moo am fukk ak juróom léegi kooku ndongo yi nekk ci ginnaawam gis moom kilifa diine gi ëppal na ñeent ñooñu lu ñuy wax ah man de wax dëgg yàlla dinaa ko ëppal sama sëriñ ëppal na ñeent man kay fukk laay ut walal kooku réeral na ñooñu ah borom xam-xam bu jabar bi xeesal def ay greffage xonk cur comme tubaab taalibe yi ñëw di ko ziar ñu gis soxna am noonu la mel ñooñu lu ñuy wax seeni soxna borom xam-xam bu wax bàyyi ja- soxnaam ñu def ay bopp neen di meesu kooku ndongo li bu ñëwee gis soxna sëriñ bi nii la mel lu muy wax man de sama soxna bu deful dara nekk ci du ma fàtte mukk benn vidéo bu ñu ma envoyé woon benn kilifa journaliste bi laaj ko ne ko yow lu tax say soxna du ñu muuru mu ne man sama sëriñ digaluma ko ndax dem naa nuyu ji ko ànd ak samay soxna ñu mel nii nu mel te sëriñ bi waxu leen dara su fekkoon ne loolu daraa ngi ci kon mu wax leen ne lii daraa ngi ci mu ne comme waxu ci nag man duma ko santaane gis nga ba li ma leen doon wax zallatul alim tarxiisu borom xam-xam day yàq diine borom xam-xam bi bu naanee sàngara taalibe yi li ñuy wax borom xam-xam bi bu tuxee cigarette taalibe yi li ñuy wax borom xam-xam ba bu fekkee day tux yàmba taalibe yi li ñuy wax borom xam-xam ba bu fekkente ne taalibe yi li ñuy wax bu fekkente ne taalibe yi li ñuy wax bu fekkente ne yéen ñëpp xam ngeen li ma bëgg a wax kon nag im Umar nee na borom xam-xam bu tarxiis day yàq diine mu ne ko ñaareel bi mu ne ko jidaalul munafiqina bil kitaabi naafiq yi toog di werante ci téere yàlla day yàq diine ay naafiq yu toog amuñu lenn lu ñuy waxtaane lu dul di werante ci téere yàlla bi ne loolu day yàq diine jàng ngeen naafiq mooy nifaaq mooy lan lan mooy nifaaq mooy feeñal lan islam waaye nëbb nëbb kéeféer ci sa xol nëbb naafiq ci sa xol borom xam-xam ne nañ naafiq bu dajeeg yow kanamu Aboubacar lay yor Aboubacar Saddiq xam nga ko kanamam lay yor waaye xol bi xam ngeen xolu lan la xolu Abu Jahlin xol bi naafiq noonu la day nekk ci jàkk ji day julli day woor waaye daa contre l'islam lan moo tax mu koy def ñàkk pexe nit ñaa ngi koy def rek bu ma ko deful dañ may tuumaal xoolal tey wallahi non ñun tey dama jékki-jékki sama portable bu sonné ma jël benn jigéen ne ma oustaz ma ne ko ah mu ne ma dam la soxla de ñu ko ah mu ne waaw mu ne ñaari question laa am question bu njëkk bi mu ne dama am ñaari mbokk yu jigéen yu bokk yu bokk ndeeg baay ñoom ñëpp ñu ngi ci bitim réew waaye dañoo am ay jafe-jafe dañoo xuloo dañoo am problème ñoom ñaar sax ba duñu tuddante léegi kenn ki doomam feebar mu dem ci benn buxaaba buxaaba bi ne ko dañoo liggéey sa doom te ku la jege moo ko def ku la jege kooku ñu wax loolu yónnee Sénégal moom tamit mu ne nañ demaat ci beneen buxaaba ñu xool ndax dëgg-dëgg réellement lu ñu lu kooku wax dëgg la ndax doom bi dañ koo liggéey ndax moom bu fekkee kon dañ koo liggéey rek kon diw mii mbokkam bii mu xulool kooku la. léegi man sama problème mooy tey jii boo demee ci benn seetkat gisaanekat wala buxaaba wala wala wala wala mais foog nga jëlee fa dara. soo demee mu ne la ku la jege ñun ñu toog fii kan ci ñun moo amul ku ko jege am nga ku la jege yow yow mas ngeen gis nit ku amul ku ko jege xoola xoola tappale yi ku la jege moo ko def ku la jege kan ci ñun moo amul ku la jege lu tax waxu ko diw mii la mais mu ne ku la jege yii rek lañ lay wax ku la jege wala ku njool ku xees wala ku xeereer wala ñii rek lañ lay wax lii léegi nag xoolal ndaw si fi mu nekk nii moom mu ngi gëm ne sërëm bi moo liggéey doomam ba muy ut confirmation mu ne joxe yónnee xaalis demal ma ci beneen sëriñ na ma xoolal ndax dëgg-dëgg li li li li ku njëkk ki wax dëgg la waaye loolu yëpp jaaxalu ma xam nga lu ma jaaxal ndaw si ne ma bu boobu paree nag man da sama bosu bopp la ma ne ko lan mu ne ma sama jëkkër du julli ma ne ko ah mu ne ma sama jëkkër ji may sëyal ma ne ko ah mu ne ma du julli de ma ne ko lu tax mu ne ma xaw ma ko de ma ne ko dafa bokk ci mbooloo yu dul julli wala mu ne ma déedéet ma ne ko dafa bokk ci secte wala mu ne ma déedéet ma ne ko ñaata doom ngeen am mu ne ma ñeenti doom waaye musul julli mu ne fajar day jot ma yeewu julli bàyyi ko mu tëdd su ma ko nee jógal julli mu ne ma man wali yu laa man wali yu laa bàyyi ma ma tëdd nee na loolu la may tontu xoolal rek tey mbir yi nii la def mbir yi dafa soppeeku bu njëkk ba ku góor da doon wax ne sama jabar ma dul julli tey man mii laa man li may woo ci ay jigéen di ma wax seen jëkkër di julli wallahi kenn xamul nu mu toll man benn góor musuma woo ne ma sama jabar du julli ay jigéen rek ñoo may woo naan ma sama jëkkër du julli xoolal koo sëyal ba ñeent ba ngeen am ñeenti doom du julli ndaw si nee na muñ bi dama kaa muñ a muñ a muñ muñ a muñ a muñ ba léegi mënatuma koo muñ nag ndax waa ji du julli ma ne ko nag na nga yëg ne li ma waxoon ndaw sa ca France loolu laa koy wax benn waaye daf maa woota benn jigéen daf ma ne man sama jëkkër du julli ma ne ko da araam na ngeen sëy yéen ñaar sëy bi na tas bu yeboo nga tas sëy bi ndax ku dul julli kenn du sëy ak moom ma toog rek 10 minutes sama portable sonné numéro Sénégal ma jël benn waay ne ma yow na nga def ma ne ko mam mu ne ma yow da ngaa xam diw ndaw si ma laajoon question ma ne ko waaw xam naa ko kay mu ne ma loo ko wax ma ne ko wax na la lim ma laaj mu ne waaw wax na ma ko ma ne ko lan la ma laaj mu ne nee na ma sama jëkkër du julli ma ne ko waaw loolu la ma wax mu ne ma loo ko wax ma ne ko araam na ngeen sëy mu ne ma foo ko teg ma ne ko yàllaa ko wax ma salakakum fi saqar lu leen dugal safara luñ tont
daawuñu ah daawuñu daawuñ julli dañoo bañoon julli beneen bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna al ahda allazi baynana wa baynahum asalaat as-salaa man taraka as-salaa faqad kafara faqat kafara yonente bi nee na ku bàyyi julli yéeféer nga mu ne ma mais loolu du ñëpp ah ma ne ko ñëpp la ku bàyyi julli yéeféer nga mu ne ma ya yow xam nga li nga wax ma ne ko xam naa ko kay mais mu ne yow ñeme nga ah ba fit ah ma ne ko ah man du fit de yàlla li mu wax ak yonente bi donc laa la wax mu ne ma est ce que yow li ngay wax ni ñeme nga ko wax ci télé ma ne ko invité ma nga wax ban télé la mu ne mu ne mu ne moom sax moo ko def yéen ñu ñàkk bopp amu leen bopp amu leen génn amu leen fulla amu leen fayda mu leen di laaj moom sax moo ko def ma ne ko ah man daal xaw ma xaw ma am naa bopp xaw ma am naa génn waaye daal moo ma laaj man tontu naa mu ne ma yow demal rek yow xaaral rek mu coupé ma toog tuuti rek ndaw si woowaat ma téléphone ne ma amul ku la woo léegi ma ne ko ah kay mu ne ma colonel diw la mu ne ma mooy sama pap colonel diw nga doon waxal ma ne ko man sama yoon ci colonel ak ministre ak député sama yoon nekk man daal liñ ma laaj tontu naa kan la sama yoon nekk bañ naa ko ba laajuma ko turam mu ne ma diw la ma ne ko baax na keroog la ma ndaw si gëj a laaj gëj a woo tey ba fii ma toog maa ngi koy gis nag ci facebook bi guddeeg bëccëg waaye keroog la ma gëj a woo waaye sama yoon nekk ci kii tamit tey loolu laa ko wax nee naa ko ne ku dul julli araam na nga sëy ak moom ndax jullit du sëy jullit bu jigéen du sëy ak yéefér dañoo xamul li ci bàyyi julli moo tax ku ko xamoon Hmm. ku bàyyi julli safara nga jëm ku bàyyi julli génn nga ci lislaam loolu dafa war a leer loolu dafa war a leer naññ naññ naññ naññ munoo nekk jullit te doo julli munul nekk dama toog sama kër goro ci mbaar mi julli jot ñépp jóg jàpp ñu lal si jàdd yi ñu ne julli ñépp taxaw ma gis benn waay toog di jàng alxuraan te jàpp na ba pare ñu julli ba pare mu ngi jàng alxuraan affaire bi jaaxal ma bi gan yi demee ndànk ma ne sama goro waaw yow ki toogoon fii nit ñi di julli moom mu toog di jàng alxuraan mu ne ma ñoom duñ julli ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko lii kon lu muy di alxuraan booy jàng alxuraan ba yegg ci waa aqimu salaata looy looy wax wala du alxuraan la téere bi nga yor di jàng moom moo digle julli yow nga gëm téere bi te gëmoo julli gi quelle contradiction non kon day yàq alxuraan day yàq diine naa féq boo xam ne dafa yor téere yàlla loolu moo kooku moom moo tey nag foofu lañ toll ay naa féq yoo xam ne du ñu wax jaami yàlla yi dëgg dañuy jël masala yi dëgg ci seen tànk orienté jaami yàlla yi yoonu safara seen yoon nekk ci pour ñoom na seen poos fees kese kese kese te ku ko wax nag dee ñetteel mu ne ko wa hukmul aimma al mudillin mu ne ko ak attekat yuy réeralaate ay njiit yoo xam ne ay attekat lañ waaye dañuy réeralaate ñett ñi dañuy yàq diine kan mooy ku njëkk ki boroom xam-xam bu tarxiis ñaareel bi mooy naafiq buy werante ci téere yàlla ñetteel mooy njiit bu réer di àtte ndax du àtte dëgg du musa wax nit ñi dëgg du musa jàngal jaami yàlla yi dëgg àtte lu ko neex lay def moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñu ñii ñoo màbb diine ji ñii ñoo alag diine ñoo ko yàq ñoo sànq jaami yàlla yi hadis bi mbokk yi al imaamu daarimi soroo na ko suñ demee ci déeréem danañ ko fa fekk jaalana allahu wa iyaakum min allazina yahduuna bilxaq wa bihi yaadiluun doomi ndey yi yal na nu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy topp dëgg yàlla ngir jub ak ñi nga xam ne njubal yàlla tabaraka wa taala dong moo leen intéressé dars bi ñu doon jàng liñ ciy jëlee mooy tafsiru aaya suratu nuur leeral nañ ko ci njëlbeen ñaareel bi mooy tafsiru aaya baraa leeral nañ aaya ba nekk ca suratul baraa ñaari aaya yooyu ku mu leer ci yow dootoo topp ay njiit ak ay kilifa diine yuy sankaate yuy sank jaamu yàlla yi ñetteel mooy anniyatu la wala albayinatu ah at tanbih mooy leeral ala maana al ibada allati ankaraha adi day tanbih day yeete ci jaamu yàlla gi nga xam ne adi bañ na ko ndax ba mu laajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ko ndax borom xam-xam yooyu du ñu fekk lu yàlla araamal ñu daganal ko wala ñu fekk lu yàlla daganal ñu araamal ko mu ne ah kay mu ne ko kon jeex na yéen a ngi leen di jaamu borom xam-xam bu fekk yàlla ne sàngara bu ko kenn naan mu ne naan leen nit ña naan borom xam-xam bu fekk yàlla mu ne jigéen bu mu def boppu neen moom mu ne def leen boppu neen borom xam-xam bu fekk yonent bi ne góor ak jigéen du ñu joxante loxo mu ne jox leen seetaan naa benn ci ci ci événement bi ci tere mu ne ñu ngi may accuser ne dama jox jigéen loxo mu ne benn waay di ma accuser parce que dama jox jigéen loxo waaw xelal lool rek ndeysaan ndeysaan allahu akbar maa ngi seetaan ci whatsapp bi sëñ Mansour si benn jigéen ñëw ne ko nii mu ne ko nii mu ne ko dama bëgg nga mu ne ko déedéet déedéet seetaan naa ko ci whatsapp bi gis nga ko jërëjëf mu ne ko jigéen du jox jigéen du jox góor loxo jigéen du jox góor loxo ba pare indi hadis ya waaw allahu akbar waaye ñun nag léegi moom fii daanaka sax yow boo ko deful nit ñi dañ lay xoolaat naan nii ki li muy def nii moom kii moom ban dëkk la jóge kii moom xanaa ndeysaan di la tegal ay baat ndeysaan allahu akbar non yonent bi lim doon wax ne diine dafay tumaranke ku ko topp tumaranke ci lañ tolloo de boo ngeen muñ juróomeel ñeenteel mooy tamsil ibnu abbas bi abi bakrin wa umar wa tamsili ahmad bi sufyan ibnu abbas ak abu bakr ak umar ibnu abbas moo leen doon joxoñ baaraam naan saxaaba yéen dama yaakaar ne léegi ngeen alku ma naan leen yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Omar nee nañ loolu loo ciy dégg yow lan ngay dégg ci loolu Ibn Abbas moo wax de nee na yéen saxaaba yi léegi ngeen alku te lan moo leen di alak ma naan leen yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar nee na ak Omar loolu loo ciy dégg mooy jullit buñ ko nee yonent bi nee na amatul droit di wax keneen nee na Sénégal nag da nga naan yàlla nee na ñu ne la waay diw nee na yonent bi sax moom kenn dootu ko waxati léegi moom moom teg nañ ko fee yàlla ngay wax ñu ne la ah yàlla lan waaw loolu lañ lay doon yàlla lan nga naan ah yàlla yàlla wax loolu ah inde sëñ bi moom bu yow nga ma taxawal ne taxawal ne nga xaar yàlla loolu lañ lay may yàlla wax loolu nga ne waaw mu ne ah waaw taxawal foofu nga xaar ko ndeysaan waxuma sax yonent bi moom ibnu abbas nee na saxaaba yi dama ragal ne yéen léegi ay xeer jóge kaw asamaan këpp seen kaw ma naan leen yonent bi nee na ngeen naan ma diw nee na ginnaaw yàlla nee na yonent bi nee na amatul wax jëf rek ndeysaan yonent bi fekk na benn waaye bu takk lam yonent bi tàgguwul waa ji de dafa ñëw jàpp ci loxo bi rek xëcc lam bi sànni ko ci suuf daa dina waa ji bis boo deewee lam bi nekk sa loxo safara la dina la lakk yonent bi wan waa ji ginnaaw dem yoonam sa nit ñi taxawoon ne waa ji yonent bi dem na jëlal sa lam mu ne leen yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat waaw ñooñu dañoo gë dëggaloon yonent bi waaw bu yonent bi waxee ñu jëfee bu teree ñu bàyyi lu tax wa ma ataakum rasul wa ma nahaakum an benn jigéen dafa fekk jigéen ju meesu mu koy rëbb yal na la yàlla alak yal na nga torox yal na nga tàbbi safara ndaw si ne ko yow lu tax nga may rëbb mu ne ko lu tax duma la rëbb ndax yonent bi moo rëbboon ku jokk kawaram kon yonent bi ku mu rëbb ku la gis war na laa rëbb yonent bi moo ne woon laana allah alwasilata mustawsil yonent bi nee na ku yokk kawaram yàlla rëbb na la tey loolu ñaata la ci Sénégal ñaata jigéen ñoo yokk seen bopp yi ñaata la est-ce que sax ñun ñu fii ci biir jàkka ji amul ñu seen jabar yi di yokk am nga jabar yow day yokk yow nag yow nag ah yonent bi daal rëbb ku ko def de bu yóbba bu ngeen amee ay soxna ngeen tere leen ko waaw te yonent bi ku mu rëbb musiba naaru laay te li garaaw mooy xoolal gis naa ab kenn kuñ ne borom xooxoolu ku koy daganal mu ne loolu dara nekk ci gis ngeen ko ci télé bi yéen ñëpp am ngeen ko ci seen whatsapp yi fii la toog ci télé bi naan jigéen ji yokk kawaram dara nekku ci jigéen lu mu raf ba rafet rek dagan na wala jàngu leen ko déggu leen ko waajooy di ko wax ah waaw kooku looloo gën a tuuti ci lu mu wax nee na góor mun ngaa fóon jigéen doo am benn bakkaar te du sa jabar yàlla dina la ko baal nee na mun ngaa fanaanoo ak sax jé- jabaru jàmbur dara nekku ci ah wala ah nee na dara nekku ci moo ko wax ñun ñëpp loolu lañ gëm tey mu ngoog dëkk bi yëpp kontaan ñëpp ah mais ne même jàkk sax mun nga fi fanaan ak jigéen jàkk mu ne bu leen taqal rek bu leen ko taqal waaw jàkk ne jàkk mun nga faa sëy ba doyal dara nekku ci mu ne bul ko taqal rek yooyu ñoo gën a tuuti ci mu wax ah ndeysaan ana nit lu muy alku bay sëy ci jàkk xanaa loo bëgg bëgg sëy jàkka ji rek nekk fi di nga muñ guddi googu waaye déedéet ñu ne nga sëy ci biir jàkka ji est-ce que xam ngeen lu tax ñuy def yooyu maanaam xam dafa am ay mbir yoo xam ne yàlla daf ko dafa daf ko jox orma yonent bi dafa am xorma jàkka dafa am xorma kaamil dafa am xorma léegi nag xorma yooyu buñ ko xottee kenn dootu ko respecté xoolal tey yonent bi ni ko waa Sénégal di daanaka luñ lay xalaat diw moo gën yonent bi moo yonent bi mooy kan lan la fi def yooyu la ñuy wax su ko defee nit ñi ña koy dégg seen taalibe yi du ñu yëg duñu du ñu respecté mukk yonent bi moo tax lu ñu wax yonent bi kenn du jóg parce que xamaluñ leen yonent bi waaye bu ñu waxee diw ah wala fan yi kañ bëggoon lakk këram fii lu mu wax pourtant waxul yonent bi de waaye am na fi koo xam ne waxoon na ci yonent bi ndax dóor nañ ko ndax lakk nañ këram voilà chaque jour ñu dégg fii ku wax yonent bi dara man chaque jour ma dégg ko fii ma toog nii maa ngi ak ñoo xam ne nee nañ diw moo gën yonent bi moo ngi fii te ñooñu kenn waxu leen dara moo ngi fii ma toog am na fi sax benn doomu kilifa bu génn mu ne yonent bi du modèle yonent bi du modèle fii ñun ñëpp dégg nañ ko mu ngi ci youtube bi xanaa du jullit yonent bi du modèle la wax am du jullit moom ah jullit la kay
non dama yaakaar ne beneen kii la bokk déedéet ci jullit yi jullit du Sénégal yi la bokk ci këru diine yi la bokk nee na yonent bi du royukaay ndeysaan xalal loolu bu fekkoon ne sax ay yahud ñoo koy wax wala ay yéefir voilà doo mais ay jullit léegi yow nga bëgg a def sa papa modèle sa maam nekk modèle ñu ne yonent bi nga ni du modèle te sa papa nit ñi di ko toppandoo bay toppandoo ni muy waxee di toppandoo ay mbaxna yi muy sol ak yére yu muy sol ak ak buy waxtaan ni muy def nii nga gis ñu koy toppandoo ah man gis naa ko gis naa ñoo xam ne dañ ko toppandoo ci lépp ci wax bi ci yére bi ci mbaxne bi ak ni muy def yaram bi gis na man gis naa ko yow famille lëmm nga xam bu koy toppandoo xoolal kii famille nee na la xam famille buy toppandoo ko famille man gis naa ba tay yi ñu koy toppandoo xala loolu léegi nag yow nga bëgg yow nga bañ ku toppandoo yonent bi te nga d'accord ku toppandoo sa papa te yàlla ne yonent bi la ñuy toppandoo loolu aaya la laqad kaana lakum fi rasulillahi yàlla ne ne kenn dong la ñu war a toppandoo kenn mooy sayyidina muhammad lekk leen li mu doon lekkee naan leen ni mu daan naanee tëdd leen ni mu doon tëddee solu leen ni mu doon sole def leen ni mu doon defee seen lépp lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kooku dong lañ war a toppandoo kooku kese kese moo tax saxaaba yi mucc ndax moom kese lañ doon toppandoo moom daawuñu xool keneen yonent bi rek moo leen doyoon kon loolu tamit danañ ko jël ci euh, ci masaa'il yi juróomi meel mooy taxyirul axwaal ila hadihi al gaaya mbir yi ni ñu changé ko ba yegg si fii saara ind ak saril ubaadil ruhbaan li ëpp ci ñiy jaamu boroom xam-xam yi lu ñuy wax hiya afdalul amali wa tusamma al wilaya tey li ëpp ci nit ñi jaamu boroom xam-xam yi xam nga lu ñuy wax non ñun ñii dañ leen a bëgg ñun ñii dañoo far ak ñoom ñun dañ leen a sopp ñun nangam ñun nangam ñun nangam ci bëgg bu ñu bëgg ñooñu mooy dem ba ñu def ñooñu ay yàlla waaw bëgg bu ñu bëgg ñooñu ci la ñuy dem ba def ñooñu ay yàlla fàtte ne ñooñu ay mbindeef lañ comme ñoom ñu def leen ay yàlla li yàlla doon bëgg ci ñoom léegi moo ñoom seen borom xam-xam yooyu lañ koy defal au lieu ñu defal ko yàlla tabaraka wa taala amatuñu yëg-yëg ci yàlla léegi ci mbindeef moomu lañ am yëg-yëg amatuñu bëgg-bëgg ci yàlla léegi mbindeef moomu lañ bëgg amatuñu ci yàlla benn ngëm-ngëm léegi nit kooku lañ gëm boo waxee loolu ñu ne la loolu mooy alwilaaya alwilaaya da ngay dem ba jeex waaw ndeysaan benn waaye dafa bokkoon benn daayira mu bàyyi bu mu bàyyee ñu ñëw di ko seetsi lu tax mu bàyyi ñu wax ba sonn kaay mu bañ ñu ne kaay nga bokkaat mu bañ gars yi ne kenn ki mu ne bàyyi ko xam nga moom daf cee bokk waaye jafanduwul su ku jafanduwul nag su sëriñ bi yëngatoo da ngay daanu moom jafanduwul woon waaw ñu ne année bu nekk sëriñ bi day yëlbu nii lay def xam ngeen yëlbu yëlbu yëlbu mooy gër fëgg fëggatu ñu ne bu fëggatoo nag ku jàppatu woon bu baax da ngay daanu ñu ne kii loolu moo tax mu daanu voilà allahu akbar gars yi kuy bëgg bëggal yàlla kuy gëm gëmal yàlla koo mën a bëgg bisa ngi ñëw di nga ko bàyyi fekk yàlla koo mën a bëgg bisa ngi ñëw di nga ko bàyyi di nga wéet di nga dugg sa biir bàmmeel yow kese yaag yàlla kenn du la fa fekk ki nga bëggoon du la fa fekk de ki nga toppoon du la fa fekk ki nga gëmoon ku la fa fekk ku dul yàlla kon kuy bëgg bëggal yàlla kuy gëm gëmal yàlla kuy topp toppal yàlla bu ngeen bëggee dégg dëgg loolu mooy waxu dëgg bi képp ku gëm ku dul yàlla perte nga képp ku topp ku dul yàlla perte nga képp ku bëgg ku dul yàlla perte nga soo bëggee yàlla bu la ñëpp bàyyee wéet doo wéet waaye bis boo bàyyee yàlla ñëpp topp la bis bu la yàlla nee coppet nga wéet ku am yàlla pertoo dara ku ñàkk yàlla amoo dara ku am yàlla ñàkkoo dara même booy lekk ay xeer ñàkkoo dara wallahi ku amul yàlla boo tëddoon ci ay milliards amoo dara mbir mi fu mu tàmbaleeg fu mu yem yëpp yàlla la ay nattu la rek yenn saa yi nga jàpp ne fekk yàlla moo lay natt soo ñàkkee nattu la soo amee nattu la ñaar yëpp aaya la ñaar yëpp nattu la am am nattu la ñàkk nattu la yàlla di xool ndax bëgg nga alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al yàlla ne ndax da ngeen yaa yaakaar da ngeen naan gëm ngeen ma rek ma ne waaw baax na déedéet foog ma nattu leen ndax nattu woon naa gaa yu njëkk ña am na ci ñu wax dëgg am na ñu fen kon ñu nit foog yàlla nattu nu kon foog ñu bàyyi xel nattu yi fu ñu mën a jóge nag yow wa bassiri sabirin bégalal ñi muñ allazina iza asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi mu ne wa ibadatul ahbar hiya al ilmu wal fiqh jaamu ñooñu ñu naan ay abbe lan lay tekki mooy ci seen xam-xam ak di leen jéem a ne ñoom ñoo dégg fiq ñooñ tamit côté boobu la soo ñëwee ci ñun fii ña ñuy topp lañ leen di toppee dañ naan ñii ñoo xam ñii ñoo dégg ñii dañ leen a déey ah waaw léegi naa ku ku wax ne day folli Macky Sall ndax moom dafa am ay rawaan day fokki day folli Macky Sall buur yàlla moo koy fal suy folleeku yàllaa koy folli kenn mënu ko folli nguur mbirum yàlla la qul illahumma malika al mulki tuutil mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tuzillu yàlla nee na nguur maa ko moom ku ma neex ma jox ko ku ma neex ma nangu ko ci yow yàlla mu ne maay fal ku ma neex ku ma neex ma fal la maa lay jox nguur loolu kay leer na léegi nag bu nit ne man mun naa laa folli yàlla ne maay fal ku ma neex ku yàlla fal ku lay folli kenn mun laa folli ku dul yàlla ku yàlla fal kenn munu koo folli ku yàlla folli kenn munu koo fal wallahi alazim loolu leer na ci yéen Abdou Diouf ñaata at la fi am keroog bu ko yàlla li folli def na lu nekk lu ne def na ko wala lu ne président africain yi sax dañoo doon yónnee xaalis di ko dimbali ak yenn ci président Asie yónnee nañ xaalis pour ñu dimbali ko mu falu waaye yàlla moo jeexal mbiram mu jeex Abdoulaye Wade keroog ba mu faloo ah kan moo ko fal fii ngay dégg ay sëriñ ñi ne ñun ñoo ko fal ah boobu fu Sénégalais yi nekkoon bu ngeen ko doon fal boobu boobu mook Senghor lu tax faluñu ko woon wax nañ wax bu fekkee ñoom mun nañ dara jamono yi ko yi ko Senghor jàppee fii di ko tëj ak di ko di ko di di ko yenu ba ci kaw naan ko ndul ci suuf lu tax fa fa faluñu ko woon ah boobu jotagul woon mu falu parce que yàlla waxagul woon ne heure bi lay falu mais gis nga yàlla bi mu tracé ne heure bi lay falu ba mu jotee Abdoulaye Wade dafa géddoon Sénégal dem ñibbi France dafa ñibbi si falu parce que boobu mu la jot gis nga bi mu jeexalee ku nekk xam ngeen ne moom président yi moo fi dàq maye ay milliards jox na sëriñ yi ay 4-4 jox leen ay milliards wala waaye ndax dem na Macky Sall da ko yenu ba ci kaw ne ko ndul ci suuf daa toog fi mu toogoon kon kay loolu leer na Macky Sall lan lañ ko doon xañ lan lañ ko doon xañ assemblée yàlla jox ko pale wala wala nekku leen fi woon yéen yéen ko fi woon assemblée nekkoon gaa yi wàcce ko assemblée lañ ko xañ yàlla jox ko pale kon kay mbir mi yàlla la du nit ñi nan delloo si xel ci yàlla Abdullah ibn Abbas bi ko yonent bi di jàngal tawxiid da ko ne Abdullah ibn Abbas mu ne waaw mu ne ko yëgal ne umma bi yëpp àdduna bi yëpp bu ñu àndoon bëgg laa defal lu yàlla ne déedéet du am yëgal ne ñëpp bu ñu laa bëggoon xañ lu la yàlla jox kenn mënu ci dara mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ko maa ngi lay yëgal leen xalima gi yàlla doon yëg bindee yëkkati na ko kayit gi fendi na kon li yàlla def kenn mënu ci dara nan noppalu te muñ te jaamu sunu borom loolu dong mooy dëgg bu fekkee bëgg noonu dégg dëgg bi mbokk jullit yi mu ne summa taxayarat al ahwaal al xaal ila an ubida min dunillah mbir yi soppeeku ba ñu dem léegi jaamu keneen ku dul yàlla man sax laysa min asalihin waxuma sax ñu jaamu ku dul yàlla waaye mbir mi daa dem dem dem dem dem dem ba ñu jaamu sax ay kàccoor ñoo xam ne gëmuñu yàlla ay saay saay lañ ay bandi xoolal tey ci Sénégal ngay gis kilifa diine gu mokkalul alxuraan nga xam ne mën naa toog di wax fii ba suba du wax alxuraan du ne yàlla nee na ci saaru sàngam su julli jotee kenn du ko gis mu jiite mbooloo mi ñuy julli kenn du ko gis ci jàkka moom daal foo ko gis gaa ñaa ngi fecc mu ngi yëlbu rek waaw gaa yaa ngi fecc ñi ngi tëgg sabari ñi ngi fecc loolu diine la loolu ban diine la diine boo xam ne fecc kese la amul julli amul jàng alxuraan ah amul sikkar tudd yàlla fecc kese sabar yaa ngi tëgg rek xiin yaa ngi dem subhanallah yemuñ ci loolu waaye mu ne wa ubida bi maana saani man huwa min aljahilin ci ñaareel bi dañoo jaamu ci nit ñi nga xam ne sax dañoo réer bee sax ñee bokkuñ ci ñi baax ñi bii nag ci ñi réer lañ dem ñi nga xam ne xamuñu dara dara dara dara dara ci diine laa ilaha illa te léegi vidéo yi dafa mel ne ku xëy rek daan ne gént naa xoola barki dem waa ji ne sëriñ bi bi mu génnee àdduna maa ko teeru àjjana maa ko sampal piliyaan bi wooyu nañ ko wooyu taalibe yi kaa leen ngeen ziyaare ji ko ci biir àjjana mu ne ko xalifa bii nii nii ah, mu ne ko billaahi wa billaahi walaay maa ko teeru ci biir àjjana waaw nga teeru nit àjjana ba pare ñëw dellu Sénégal di lekk mbaxal àjjana kay xanaa ku fa dugg doo génnaat loo yut Sén- loo yut Sénégal fii ñi dem Amérique rek bëgguñu ñibbi Sénégal wala wax leen dëgg ñi dem Amérique bëgg nañ ñibbi si kenn bëggu si ñibbi te ku nekk sa sago mooy man kay naa am ay visa rek sama soxna ak samay doom ñëw ku sañoon sax nag sa ndey ak sa baay dem wala fekk la fa yëm ñu ku sañoon sax ñu tegal la avion ginaar sa ginaar yi sax nga génne leen Sénégal yóbbu leen États-Unis wala France noonu la fi mu nekk nii ñun ñi toog fi yëpp ku ñu fi may billet France looy da nga koy da ngay bañ wala da ngay jël da ngay jël ñu ne la sa papa ak sa yaay ndax bëgg nga ñëw nga da nga naan waaw ñu ne la sa frère yi nga ne waaw ñu ne la sa soxna yi nga ni waaw suñu la ne waaw ñu yónnee la avion yi ñëpp ñëw looy wax waaw man kay jox leen ma benn benn booyin ma indi sama famille yëpp léegi àjjana nag nit dafa dem dellu si waat Sénégal ah allahu akbar mais léegi ku nekk lu neex nga wax man damay dugalaate àjjana man maa téye asamaan man géej gi bu puusee ma téye ko man damay dox ci ngelaw li man du ma nelaw guddi man maay teeru ruu yi ah man ars waa kii sax xam na gis nga xale bu ndaw bi sax mu ne ars laay fanaan am na ñoo xam ne nee nañ ars la ñuy fanaan suñu benn borom xam-xam yàlla na ko yàlla fay mu ne ñi naan ars la ñuy fanaan mu ne xanaa yëgu leen ne ars amul duus ars amul duus de
seet waaw mu ne ars amul duus boo fa fanaanee sa biir bi mu ne gurur foo jëm te ars amul duus yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko foofu mooy jeexital buntu man ataa al ulama wal umara fi tahrimi ma ahal allah aw tahlil ma harrama allah buñ fi yàlla bàyyee ba talaata bii di ñëw ñoo ngi jël alam tara ila alladina yazumuun annahum amanu billahi annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahaakamu ila taaxut loolu mooy nekk dars bu bees noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yi ñu jé yi ñu passé yàlla jéggal ñu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh